Fatun malakiyatun Hula adamiyin khil Fatun malakiyatun Mata Zamani Assalamualaikum, nyungi santi alubah di julli ci di santu sini wajur ma itu du Gora di konsey municipal Fiji. Kemin Bucana ba Nyungi euh Alubah di julli sang sang bu la bay sek Euh, di ko ñaanal gudd fan gu ànd ak wér jël nuyoom teg ko ci euh, kilifa dinañ nekk ci commune bi yëpp nuyu la sous préfet euh, mu jël nuyoo bi donc jox ko aussi monsieur le maire Talla tey nag liñ fi dajale tey jii mooy dañu amoon lu naan conseil municipal conseil municipal bi tey ñu accès woon ko ci ñaari point bu njëkk bi nekkoon ay examen d'affectation de terre beneen bi nekkoon ci commission d'enquête bi nga xamante ne nii moom la ñu woon fii doon def liggéey boo xamante ne bu mucc ayib

beneen bi mooy ñu dugg ci mooy droit bi mooy euh, commission d'enquête bi nga xamante ni dañ ko yóbboon tey ci carré bële parce que dañu supposé woon ni am na détournement bu fa am parce que xam nañ le compte administratif 2019 600 000 francs la génne woon donc bi ñu dajee ñu xam ni li mu génn ndaw na war koo génnee ci li ñu formé commission d'enquête commission d'enquête boobu dem na def liggéeyam ba pare liggéey bi mu def donc liñ ci mën a wax mooy euh, gis nañ ni am na càcc gu rëy goo xamante ni am na euh, bu ñu wax rek danaan bu dal ci kaw en tant que conseil municipal parce que conseil municipal bi tey lépp lu xew ci seen kaw lay dal moo tax ñun tam ñu am ci taxawaay bi ñu ci war mooy wax le maire Talla Diagne mi nga xam te tey jii mooy le responsable parce que ñun moom lañ faloon askan yi aussi moom la ñu wóolu moom lañ teg ci kaw mu xam ni lii xew ni tey bu dee téeméer 90 yi moom moo ko yenu parce que ñun xamuñu ka fa nekkoon du ma tudd sax turam yóbbuwuñ ko fa donc moom moo fa jëloon homme de confiance am yóbbu ko fa kon lu fa xew ñaar comme ëllëg ci kanam yoon ca lay leere li ñu wax ci biir la ñuy wax rek ni yërëm baax na mais xam na ngay yërëmeem moo ko solo beneen ba mooy euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamante ne nii mooy suñu royuwaay daf ni sa mbokkum jullit bu ñu ko tooñee na nga ko taxaw mais tam également bu tooñee na nga ko taxaw jàppale ko jàppale googu nag yonent bi li ñu ci jublu mooy bu nit de sa mbokkum jullit tooñ nga ñëw ni ko tey nekkoo ci dëkk loolu laa wax ci biir loolu laa wax devant euh, les conseil loolu laa wax aussi le maire ma ne ko tey nekkoo ci dëkk parce que tey jii moom mooy exécutif maanaam moom la ñu fal tey jii sunu alal moom la koy laaj lu foot dougal ak lu mën a génn moom la ñu ko war laaj kon moom moo war ay comme ni ko devant les conseils parce que bu dee fukki conseil mën naa ne juróom-ñett yi jël nañu décision wax ni le maire na dem top affaire ba te mbaax na doone benn parce que lors doo moo mën a setal mbir mi bu dul maire lors mon mooy courage parce que bu ko wóoree ni mon laale wu ca taxi wu ca li mu war a def mooy dem bu yoon def liggéeyam bu yoon defee liggéeyam ñu xam kan moo ci tax ak kan moo ci tax mais tey jii may wax yow nii man Gora Ndiaye présentement mënu ma ni diw moo lekk suñu alal mënu ma tudd kenn parce que loolu yoon moo koy définir

autosaisir ci mbir mi xew Thiénaba mais également àddina bi yëpp xam ni Thiénaba li fi xew ak càcc la te ku ne xam ne boo demee ci hôpital yi nërmelu na santé bi kenn waxaale ko éducation bi nërmelu na kon bu ñu amee ay 100 millions ay nangami millions yoo xam te ni mu ngi dem nit lekk ko xamuñu kan moo ko lekk wax dëgg yàlla loolu duñ ko bàyyi moom muy jàll kon nañu am fulla ak fayda ci par rapport ak loolu voilà maire waaw très bien loolu moo tax may ñaax may may ñaax la population parce que mm-hmm. dinaa def dinaa ko topp ba mu sës dinaa li ma ci war a def taxul def ci li nga war def wala nga wax la rek mën naa nekk ay wax yi saal kon dañuy wax population bi ñoom ci boppam ñu def ay pression buñ toogee deux jours trois dégguñu mu jël benn décision bu jaree marche nañu marche bu jaree population bi moom ñoom ci boppam euh, saisir euh, société civile bu saisir leen parce que lii war ñu ko bàyyi mu jàll parce que bu ñu ko bàyyee moom dong mën naa bañ a euh, maanaam mën nañoo bañ a xam fi mbir mi fi wànd ni mu jéeg bëtam kon ñoom bu ñu am na ay conseils ne ci biir mais ñooñu mooy ñu xamul dara parce que ku xam dara doon naa ni jégado parce que lii kenn xamul ko diw moo lekk ba ca kanam yoon yoon comme ni yoon ni yaa coupable ñu xam ne yaa coupable mais ñu ngi sant yàlla bu baax ñu fi tax ñu ñëw fi en que conseil mooy taxawul population bi ci loolu la ñu nekk démb ci lañ nekk tey ci lañ nekk suba incha allah ñun li ñuy def dañ koy def ci li ñu war a def lu ñu war a kaas ñu kaas ko boo gisee tey sama kanam gi ni ma sot nañ trop parce que xuloo bee xam nga ci biir yooyu yëpp badal. loolu mais sant yàlla bu baax daal ñu ngi borom subhanahu wa taala asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu Thiénaba eh, 24 maa leen di nuyu di leen siyaare yéen ñi nga xam ne ñu facilité ñu mën taxaw ci micro yi di wax ba àdduna bi yëpp di ñu gis ci li xew tey ji ci commune Thiénaba wax dëgg yàlla rafetlu nañ seen taxawaay wa en même temps rafetlu taxawaay waa Thiénaba Thiénaba jeunesse nañ amul parti amul mouvement ñep bokk nañ taxaw andando xex xex bi ki ngeen sama gauche qui moom moo yor askan wi nek mouvement bu am doole fi ci Thiénaba man mi ma nek fi ci euh, gëm sa bop ñi gis ñu taxaw ni ñoom ñooy waa euh, Thiénaba Horizon euh, wa Pastef a ngi nii wa wa wa wa wa Abdou ngi ya nga nale su ko defee ñoom ñëpp ngi leen di ñu bolé suñu doole ak suñu xalat tek ko ni lii ñu bëgg a teg suñu kaw du am waaw te lii ñu taxaw nii tey bañ ko dañ koy poursuivre ba li euh, fa mbaxana doone benn ñu xam ki nga xam ne mooy coupable bi te gars yi dañuy wax naan xamuñu ko sàcc mais ki sàcc xam nañ ko ñun sunu alal joxuñu ko kenn ku dul meer maire lañ jox suñu alal kon bu réeree moom lañ koy laaj waaw moom nag gars yi nee na ñii nee na nañ taxaw mu dem porter plainte mais ñun dañuy taxaw pour dem def sunu plainte ci procureur euh, ñuy wax nag euh, ñu ne ci wàllu yoon yëpp ñu xam ne waa ba seen alal lañ bëgg a jot nañ ñu ko mën a jox ci nii ñu xam mën ñu koo jox ñu ko wax ñu nan lañu war a def mais ñun pare nañ pour pour pour lépp waaw pare nañ pour lépp waaw waaw parce que lii daal yomb na yomb koo xamante ni bii daal at bu jot nga mën a lekk cent et quelques millions di ñu présenté ay six cent mille loolu rafetul ci dégg-dégg waxtu wala gis-gis te nga taxaw yow carrément xam ni xam yow mi ngi jox suñu alal nga taxaw nangu ni ñun ñoo lekk seen alal ñun ñoo ñoo def erreur waaw loolu nag yoon na ci na def liggéeyam ñu jaratul sax ñuy wax kon sëñ Babacar fekkee am na loo ci dolli. kon asalaamaaleykum maa leen di nuyu vraiment di leen gërëm comme ni ko mbaykan waxee léegi ci seen taxawaay eh, depuis ci suba yéen a ngi fi mais ngeen may ma rek mu am lu ma lu ma fàttali ci suba bi ñu ñëwee parce que je pense que ci suba bi ñu ñëwee eh, collectif bi yëpp dañu ànd eh, ñëw dugg mairie boo ne dañuy dugg pour assister activité bi. vraiment mu nekk loo xam ne lu ñu moom la te lu ñu sañ la mais ci mbetteel ASP bi nañu dama jot ndigal ne kenn du dugg bi ñu ko laajee ndigal li fu mu jógee mun a meer loolu muy lu ñu ñaawlu nag parce que rafetul parce que mënoo saax saaxee suñu alal wala yow ñi ngi ko dénk saax saaxee ko ñu ñëw di nga ne du ngeen ñu koy ñaawlu euh, heureusement ba sax ki njëkk a génn muy góor a boo taxawaay bi mu am te taxawaayu responsable la parce que ñun du ñu ay mala mhm. ñu fi leen dëkk ci commune bi ñu nag ñoom ñoo ñoo dëkk heureusement que moom bi mu génnee taxawaay na taxawaay bu rafet muy Gora Diagne parce que ñëw na wax correctement parce que mënoon na def comme kiw Dakar bi euh, ñëw rek bu dee mais deful loolu dafa ñëw vraiment waxtaan ak ñun ñu aussi ay borom xel lañ ñu comprendre wane vraiment actes yooyu ñu ngi koy def parce que lu ñu bokk dañ ko war di waxtaanee mais li mën a am ba am bu ñuy ñëw ci wàllu carrière bi

ñun ñun aussi collectif bi dem def beneen plainte parce que partie bi il faut ñu dem porter plainte parce que gis nga mbir aussi euh, boo boo bàyyee bii beneen di nga bàyyi leneen alors que nag euh, bu ñu xoolee perte boobu yëpp li mu mënoon def ci commune li mu mënoon a régler ci commune boo jaaree nii di dem kër Ibra yaa ngi gis waa kër Ibra di defaral seen bopp yoonu latérite mais millions yooyu ñu saasaaxee ñaata yoon la ñaata piste la def ci commune bi ñaata salle de classe la mënoon bi nañu yeewu nañ yeewu xam ne ñii ñu ñii ñu ñii ñu denk euh, commune bi seen limite wane nañ ko comme que wane nañ seen limite commune bi nañu organiser wu commune bi laay wax nañu organiser wu fexe koo teg ci ay ay ay loxo yu leer ñu doxal au moins changement mën a am vraiment loolu laa amoon lu ma ci wax. presse bi nga xam ne ñu ngi suba ba léegi euh, dem kontaan ak mbégte bu baax a baax ci taxawaay yi donc comme ni ko ñëpp waxee rek euh, dañu rafetlu vraiment taxawaay population bi. ndax soo ba léegi ñu ngi taxaw ànd ak waa ñi fi dajee ñëpp pour leeral li nga xam ni mooy alalu askan daal maanaam mu féetee boor ba leer ba xam ni population yi ñu ko moom xam ni vraiment seen ak ak seen i leef dañ ko jalgati te dañ cee war a jot kon xeex bi lépp lépp lépp yàlla xam ne askan yéen yéen ko moom ñu dañoo engagé wu rek nekk seeni ndongo euh, nekk seen i leen teewal ci béréb bi nga xam ni bëgg nañu alalu askan wi vraiment ni ñu ko caxat caxatee mu leer teg ci yoon ñëpp mën cee jot kon loolu daal la ñuy tënk jaajëfal ñëpp ndax kàddu gi yàgg na temps bi metti na vraiment nit ñi sonn nañu kon jaajëfal population yi jaajëfal journaliste yi leen jë jaajëfal yéen ñëpp daal merci jërë ngeen jëf fatun malakiyatun xula aadamiyin xel fatun malakiyatun mata adrakat naa li zamani baliya